dama am mbégte lool mbégte ak cant wax naa ko sëriñ bi sànq moom sëri sëriñ Muntaxa nee naa ko lépp loo naal daañ ci dugal suñu loxo Touba lépp lu ci sëriñ bi namoon te ñu gis ko ci téereem ba di matlabul fawzayni mu doon yaakaar bu rëy ak ñaan yu rëy yi suñu borom nangu nee naa ko sant naa borom ba ba ma mayee ma defal leen li fi am loolu nag yàlla ñu ko baaxee ñu sante ko ko bu baax kon maa ngi santaat bu baax Serigne Mountakha ci jàpp bi ma jàpp wax naa ko sànq ci waxtaan bi ci ñaan yi muy ñaan ci taxaw bi mu taxaw réew mi ak diine ji ak yoon wi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëñ Basiru nga jottalil ma ko cant gi ak mbégte continuer di liggéey ngir dëkk bi mën a gën a jëm kanam ci fànn yëpp muy wér-gu-yaram muy yoon muy ndox muy assainissement léeg damay xaw a jaaxle bu may dégg yenn wax yi ndax fii Touba li ma fi def ci assainissement gouvernement mosu ko fi def kon nag su fekkee taw na taw bu jéggi dayo war nañoo muñ ñu liggéey mottali yéene ak lañu tàmbali woon waaye li fi def kenn defu ko fi kon muy assainissement muy ndox mi ila Touba kenn waxatu ko muy l'hôpital bi muy leneen ak leneen du jeex courant bi te loolu Touba daf ko yelloo waxuma sax li sëriñ bi ñaan mu sëñ Touba waaye réew mi fi mu toll Sénégal tey Touba yàlla def na mooy deuxième ville du Sénégal ci wàllu population ci wàllu consommation électrique moom rek moo fi consommé lu toll ci quatre-vingt-cinq mégawatts ci courant loolu lu yaatoo yaatu la kon nag jaadu na ñu taxawu dëkk bi liggéeyal ko waaye baax na tam ñu gunge ñu ci liggéey boobu ci dal ak ci xam ni sëriñ bi lañuy liggéeyal population yi lañuy ñuy liggéeyal loolu mooy li ma fi bëggoon wax tey ndax mbégte bu rëy la bañ koy wax nee nañu waaye du yegg dañuy wax rek campagne a tax yaakaar naa ni wet yi gis bokk si